aussi internet yi nga xamante ni am nañ chance su seetaan entretien bi fu nekk maa ngi lay nuyu di leen baalu àq di leen baal àq ci koor gi quoi. Mhm. ñu gis initiative bu nice bi dañuy daal di faral ne gis ne bu weeru koor jotee euh, actes mel nii day daal di bari mais yow bokk nga ci ñi nga xam ne da ngeen ci yàgg ba pare sax ci lu waral li ni mel. Euh, loolu mun naa ne initiative Blindé Blindé yi la quoi du ma wax ay fan mais samay frère ak samay sœur ak samay doom longtemps et chaque année da ngay gis dañuy évoluer di teg ay jéego de plus et nga gis ni tey ren bi nga xamante ni ça fait deux ans si bis bu ñu koy def mun nañ ne cinq région wu Sénégal yëpp dañ koy defandoo en même temps ak ñoom donc loolu day wane ni genre cofeel bi ñu am ci man yéene bi ñu am ci man dañ koy def rek suumoo mon nom mais voilà en réalité du sax Ngaaka Blindé quoi mais Blindé Blindé yi ñoom ñoo koy def en personne. lan moo tax tey suwa bi doon fi nga xamante ne waaw géejawaay c'est normal parce que géej géejawaay fii la lépp tàmbale fii fii laa juddoo maagee fii laa yaroo donc ñoom aussi dañuy am benn reconnaissance envers sama secteur parce que tey ñi fi nekk ñëpp dëkkuñu Guédiawaye am na ñu jóge ay Parcelles am na ñu jóge ay Touba am na ñu jóge ci secteur bu nekk mais bu ñu ñëwee Guédiawaye dañuy wane ni tey am nañu reconnaissance ci Guédiawaye produit bi mu leen jox muy Ngaaka Blindé. Mhm. ñu gis jamono ji yaa ci produit bu bees àdduna wërngal képp daal di apprécier muy Kër Baba. initiative xam ne moo di idée Ah, mais tungu ne du teew ñuy nataal la initiative bi maanaam fan la jógee. waaw Kër Baaba bon initiative bu bu bu je bu bu simple la pour ne pas dire noble mais bu simple la parce que je me suis rendu compte que chaque période Ramadan artistes yi rappeurs yi tous confondus dañuy dañuy dañuy dañuy def benn break et je me suis dit pourquoi pas am benn initiative boo xam ne dinaa ko teg au moment boo xamante ni. ci biir mois de ramadan bi nga xamante ni dina permettre nit ñi découvrir disons la vraie personne de leur artiste pour ne pas dire euh, acteur pour ne pas dire artiste kese parce que au début bi may am idée c'était juste pour focus ko mu yam ci hip hop parce que dama bëggoon nouvelle génération bi wala hip hop bi ñu leen gis à chaque fois pour que ñu bañ a absenté durant le mois de ramadan après nag bi ma ko présenté équipe bi ñu parfaire ko ba nga xamante ni léegi au delà de hip amoon na yeneen acteurs yoo xam ne ni ngi ciy gis seen bopp ñu gis sénégalais nuñ koy saluer après ñu continuer ko quoi beneen facette suñu facette ñun facette de journaliste. moom question mais mu jaaxal ñu bari nag ñu bari ba ñu gisee affaire bi dafa daal di nice ñëpp apprécier mu jaaxal ñu lool. Euh, bon comme je dis rek. bëgguma sax ñu yóbbu débat bi ci kër baabu quoi tey ndogu bi la ak blende blende yi quoi xam mhm. du sax du sax poser question si juste un du du du histoire de de de présentateur wala animateur ak benn invité no non non débat la artiste bi day ñëw ci kër gi ñu waxtaan may xool fan la toll ci digganteem ak suñu borom nan la mel ci côté foi nan la mel ci côté spiritualité am donc du du histoire de sax de de de de journalisme quoi mais dañuy toog comme entre nit noonu la ma dikkee woon dañu toog sama kër di waxtaan waxtaan bi am sens. ma ni pourquoi pas ñu garder lii def ko benn idée. ñu gis ne ñu gis ne bi a yàgg ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si ginnaawam di ko jàppale. waaw donc Blindé Blindé yi dafa dafa yaatu cest à ñoom tey man benn élément laa rek si seen biir quoi mais tey ñoom seen biir familiarité bi ñu am ah ni ñu nekkee ay frères ak ay sœurs ñoom seen biir mun naa ne sax man melu ko ak ñoom. bëri na ñoo xamante ni tey ci Blindé Blindé yi su ma leen xoolee ñu naa leen xàmmee mais du ma seen tuur or que ñoom seen biir ñoom ñëpp xamante nañ di demalante ay kër di seq ay mbir yoo xamante ni peut-être. base bi Ngaaka Blindé la mais au final ñoom ñoo nekk ay frères de ce fait de telle de telle chaque année bu ñëwee rek dangay gis day am benn pas de plus parce que am na ñu nekk tey si diaspora bi mun ñu ñëw dañ leen di jox seen ay participation tey dama ngay am plaisir gis ñu am sponsor bu ñëw couvrir euh, tey ndogu bi déwén aussi am nañ yaakaar mu gën a yaatu di gën a yaatu ba nga xamante ni dina am yeneen ak yeneen yu am sens yu ciy topp euh, yu dul dul ndogu kese quoi. que mën nañu mois de Euh, bon comme je dis ah Ngaaka Blindé benn profile la Blindé Blindé c'est le Blindé international benn profil la tey ñun nu ñuy amee agenda agenda di xam si année bi lu ñuy def ñoom Blindé Blindé yi noonu la ñuy amee seen agenda di xam seen année seen année lu ñuy def donc bu ñu dajee dal nañu daaw daje nañ ci benn date boo xamante ni ñoom dañoo bëgg Ngaaka Blindé bëgg xuloo bi tar ne ñun dañuy bàyyi ñun ñu ne donc des day day ñoom ñu am ay événement ak suñu bos donc euh, man li nga xamante ni maa ngi ci nekk après weeru koor gi na si samay projet personnel mais ñoom aussi am nañ seen ay projet peut-être boo leen laajee seen président wala seen chargé de communication dina ci gën a mën a yaatal quoi mhm. Mhm. Euh, ne nag moom ngay euh, am di jàmm ak say fan si ñu di tëj bon après mois de ramadan bi li ci am am bon li gën a nekk lu costaud li gars war a xaar mooy mooy volume 2 bu secret 7 instant bi loolu laa leen desel te nee naa du génn ci 2000 bii nii ñu nekk xam nga donc euh, xam naa fii ak mois de juin au plus tard juillet dinañ communiquer date de sortie bi laa mun nañ ne ñu ngi ci def liggéey bu am solo profito ci weeru koor gi. bu ñu jàllee ci yoon yooyu y' a pas mal de dates ñu war def juste après le mois de Ramadan am nañu ay dates fii sur le plan national comme sur le plan international donc euh, yooyu yëpp ay projet la projet KBC aussi ñu ngi ciy liggéey pare nañ donc ay c'est juste dañuy am ay quelques réglages yu ñu par rapport ak stratégie de communication bi sortie bi tout KBC aussi ñëw gis nañ ce juste avant le mois de Ramadan nu artistes yi commencé génn ay ñoom Milk ñoom Sori l'officier ah Double M Jazz Kana moom dem na Paris actuellement nekk ci liggéeyu album am nekk fa Idja tamit ñoom ñi nekk foofu di liggéey ku lems aussi mi ci liggéey bi donc am pas mal de trucs yoo xam ne ñu préparé juste après le mois de ramadan ñu génn ko. wala si mois de ramadan bi kese lay euh, bon idée bi c'était juste def ko si. ci mois de ramadan bi ah loolu moo nekkoon sama man sama sama sama initiative après bon gis nañ nag de gauche à droite ñenn ñi daan bëgg nañ mu am après même le mois de ramadan je sais pas si temps bi koy may wala duñ ko may mais nekkul woon affaire boo xamante ni wax dëgg yàlla prévoir woon naa mu mu mu continuer ci mois de ramadan bi quoi. maa leen di kontaanee di leen jaajëfal yéen tamit ah, ci opportunité bi ngeen ñu jox jox ko aussi blende blende yi parce que c'est pas évident ku xam weeru koor xam ne ñi bëgg lu mel nii et kuy def ay yu noble tamit bëgg nga di gis ñu koy fësal donc yéen tamit maa leen di jaajëfal di jaajëfal Blindé Blindé yi aw ma seen fayan ah. yàlla rek laa koy wax quoi ñoom li ñuy def pour pour pour Ngaaka Blindé wala du ma sax Ngaaka Blindé li ñuy def seen bopp seen bopp rek nañ koy defal quoi donc di ko tàmbalee si président ah, ba ku ci mujjee adhéré am carte de membre maa ngi koy nuyu di ko saluer di wax ni maa ngi gis coono ak yëg-yëg bi ñuy daj mënu leen fay yàlla rek laa leen di baax ak Xaadim Rasul yàlla leen yàlla fay quoi Mm.